yàlla bu baax te delloo gi mu delloo ko ci boppam ba ba suñu xel gën a gëdal dem ci moom suñu lépp gën a dellu ci moom ñoo ngi sant bu baax a baax di sant ñëpp nag ci wuyu gi wuyu gi ñu ngi sant ñëpp ci wuyu gi ak liggéey bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf fa tabaarakallaahu noonu noonu noonu dong la noonu dong la xam noonu dong la dañ ci dañ ci dañ ci sax nu de ci nekk waaye nan nan ci sax rek ndax léeg-léeg nu gën a delloo nu gën a delloo suñu bopp waaye ci waaye dañ ci waru waru waruñu cee jóg waruñoo jóg ci teew la toroglu ak ñaan ndax dana dig doomu adama ak ak ak dox yéen dox yéen dox yéen adduna yi nga xam ne suñu bopp am na soob mu di mu di mu doxale ko noonu te te dara xaju ci doomu adama kon alhamdulilah rabbil aalamiin noonu rek la dañ sax ci jaamu yàlla loolu moom rek mënu fi dara andi wuñu fi jaamu yàlla rek nu fi andi ak taw bi jooy ji nu am nu ba boole nu Sëriñ Tuubaa nu nu war a mën a sax ci liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey la ci lépp lu baax te yàlla rek tax nag waaw noonu rek la jërë ngeen jëf